nuyu di len sargal ci ndam lu rëy li ñu indil sunu réew defe naa Sénégal fu ñuy ne am na fa titre mondial amaat ko am ko ko daara yi fi indi amul feneen lol kon ñu di sant di len sargal defena naa nee nañu man amgen sans sens mais yéen it am ngeen sens ndax da ngeen exemple ñun dañuy sant mais yéen am ngeen sens da di sant ba pare am ngeen référence te tey defe naa gis ngeen ne yoon bi ngeen jël yoon bu baax la yoon bi nga xam ne seeni waajur fa lañ leen teg yoon yu yoon yi gën ci yoon yi mën a am la soxna Ndate xam naa ne ba léegi xamagoo li nga am xamagoo li nga def xamagoo fi mu toll xam nga li nga liggéey xam nga ni nga sonne xam nga ni nga ko bëggee woon mais li nga am xamagoo nu mu toll li nga am lu rëy la Sénégal tey ñoom ñëw lay ndokkeel yow ak sa oustaz ak ñi lay encadré ba may commencé jël liggéey bi fii si ministère de l' éducation nationale fekk naa fi tamit ki fi jóge ak euh, waa ministère bi ñoom it ñu commencé liggéey ci benn programme bu nga xam ne jël nañu am ne nañu benn projet boo xam ne dañ ko am euh, PAPES mondial bu nga xam ne ñoom dañoo nangu jël ne dañuy encadrer 600 daara ci 20 20 millions de dollars lolou dina man fekk naa ko fi. dinañ ko gëna yaatal ci waxtaan bi gën ko feeñal xol nan lañ koy défé yal xaalis la bu nga xamné Sénégal moko lepp banque mondiale pour investir ko du banque mondiale moko ko mayee gouvernement du Sénégal moko ko jël leb ko ci banque mondiale duggal ko ci daf koy fay. man tamit dina ci jël lu takku nga xamné dañ koy bolé ak programme bob nga xamné day gëna yaatu amna ci ay xalaat. xalaat yi ma ci am mooy jàppale daara yi mais jàpp naa ne tamit da jàppale daara ak jàpp ndong jàppale mooy jàppale sëriñ bi mooy jàppale ndongo bi damaa bëgg xool bu fekkee ñaari dispensaire xam ne dañu leen di taxaw tabax fii ci Sénégal fekk ne ndongo daara yi ak sëriñu daara yi la ñuy faj di leen toppatoo nga xam ne dañ leen di faj ñu dañ leen di faj mais tamit amay it équipe itinérante yu nga xam ne dañuy jóge foofu di dem ci daara yi di xool di leen toppatoo ci président dinaa bëgg mu recevoir leen bu recevoir parce que bu ñuy recevoir équipe bu football yi bu ñu indilee ndam dañuy recevoir ak ñëpp encadrement bi yëpp ñu war a bokk ñëpp comme ni ñu def bii pas tamit man dinaa bëgg même bu amul mu yaatoo bële bu ñuy jël coupe d'Afrique mais dinaa bëgg dinaa ci ñaan te dinaa président dina ko nangu xam nga maa ngi jégalu sax li koy wax fii mais ñu recevoir ñu salle des banquets fekk ne kilifa diine yi bu ñëwul tamit dinañ leen représenter. ñu ñu euh, consécration yi ñu am yëpp ak yow ba tey nga wane ko ngay ku jigéen ku njëkk am consécration bi ci biir Afrique loolu tamit ñu sargal ko ni mu wane en tout cas dina ci taxaw te xam naa ne président dinaa ko ci fekk te bu boobaa tamit dina continuer moom wax la li nga xam ne Sénégal moo la ko yoreel te dinañ la ko defal. di wax ni tamit lii nii lu tuuti la si ndam yi ñu indi bu ñu jàppalee bu ñu dem si université yu mag yi. ndam ni dina gëna law daal dina gëna jëm kanam incha أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم